xol bu rafet léegi bi météo ni day taw dama ni noonu du taw boroom xol bu baax ay dugg Louga yàlla day téye taw bi ci barke Serigne Fallou Mikaël mi moom taw bi ba waali génn Louga mu soog a taw xol bu rafet bi ci yow social bi ci yow am respect bi ci yow li ma la wax léegi ni law lépp sa baay limal sa yaay yépp faaw résistance bi am bul tiit mbay si lan rek laay wax dafam am loo wax sànq nga ni ko sama rakk ji te Sénégal dañoo gaaw ci bu ñu fekkee sa jamonoy papa nan ko papa ba mu génn àdduna ñu bëgg naan la sama doom kii du doomu kenn nañ ko respecté kii kilifa la xam nga bu la neexoon tey nga ñëw nañ ko sama doom ji parce que nag way nga papam di way waaye bi ànd ak Thione Seck nan ko papa mu génn àdduna nga gis waali naan ko sama doom nga kii xam na lépp dafa noppi rek ku mu mat wax baay dina la xam na ni yaay baayam mais nañu bàyyi con sekk min naan xoolal diw maay sa baay kii xamee na ay baayam ok waaw ma ne mbay mbay si njaay ma ne mbay waaw waali eh, eh, eh, ma ne damay ñaan ngeen tàcc mooy suma yaay dama sëy a léegi jërëjëf Fallou léegi man maa ne yaay sax waaw garaaw man man na ma ñëpp jur na ma ñëpp mag bay ak maa jox respect bay yaa ngi dem xol de sama sang bi jërëjëf tàccu leen a baax tàccu leen ko tàccu leen ko ko tàccu leen ko mais Wally mbaa yaa ngi seen Badara Ndiaye seen naa ko Badou Badou borom borom Espagne sama jàmm bi kaay xale la ci biir xale yi jërëjëf Wally kontaan naa jërëjëf dama jërëjëf chéri yaay ndare ji mooy jaajëf ana Mbaye kontaan naa Mbaye jege si kaay fi Mariasin mbay yow ku la lekk dee rey la génnum réew mbay kaay nii ku la bëgg a jur loolu loolu yombul dee yow Thione Seck la mën a jur barke Seydina Mohamed non maar waa jeex na xaaral damay wax lu am solo billaay wallaay talay barke Sëñ Fall yow yaay xool ku la leer ni la kii mook Thione Seck la woon nga ni ko bàyyi mais ay xale yu ndaw di toog di yab Thione Seck naan la maay sa bàyyi loolu mënul ne looloy dëgg njaay billaay wallaay taalaay. dëgg la waaw bay nañu respecté li yàlla suñu borom di doxal. waaw bay kii kilifa la. Thione Seck rek ko mën a jur. caaxaan du ko jur yambar du jur kii. di waay di fréquenté Thione nan ko papa. gis waali bëgg koo def doom loolu mën na ne. loolay dëgg moom kay da rek. waaw déglu ma. Mar. lii mooy expresso. xam nga nag da ngaa indi problème bu rëy. dafa nank rek. mën naa ko tëgg mën naa ko fecc. Mar. man maa ko liggéey lii mooy expresso osé réveil léegi ma ni lugaloo ku ci am wéef na ko ubbi ubbil ubbil seen téléphone yi ma wan mais mar xaaral ma ñëw rek ubbi leen téléphone yi ku ci am wéef na ko tijji su ma ni décembre décembre décembre décembre Wally Balago dina ñëw Louga dafa nànk rek xam nga luy engrais da ngay am compte wave yor bis ndax Wally Seck du ay fo Wally Seck du caaxaan Ndiaye yëkkatil ma li tourné ko tourné tourné ko tourné ko jën jën tourné émission maar damaa sonn tabaski dafa métti. maar li nga dafa bare. xamal naa la ñaar de. xamal ngay sama li nga wax dafa bare. jël nga conseil yu na bu yàgg nañ dem waay. ah jërë ngeen suba incha ñu ngi jëm te nangaan bu soobee yàlla bu nekkee suñu borom di dogal suba ñu ngi nangaan alors elle est où la diva ah jërëjëf comme ni ko Wally Ballago Seck waxee suba incha allah ñi ngi jëm ca nangaan ndax concert bi ñu waroon a tëgg démb yàlla sunu borom ñëw dogalam mu taw nogay bu suba incha allah ca nangaan Wally Seck mi ngi ñëw ak waa Ramdaan jërëjëf vida. lekk dee. rey la génnum ku la bëgg a jur. loolu loolu yombul de. <laughs> yow Thione Seck rek la mën a jur. barke Seydina Mohamed. non Mar. waa jeex na. xaaral damay wax lu am solo. billaay wallaay talay. barke Sëñ Fall. yow yaay xool ku la leer ni la kii moom Thione Seck la woon nga ni ko bàyyi. mais ay xale yu ndaw di toog di yab Thione Seck naan la may sa bàyyi. loolu mënul ne. looloy dëgg Ndiaye. billaay wallaay taalaay. dëgg la waaw bay nañu respecté li yàlla suñu borom di doxal. waaw bay kii kilifa la. Thione Seck rek ko mën a jur. caaxaan du ko jur yambar du jur kii. di waay di fréquenté Thione nan ko papa. gis waali bëgg koo def doom loolu mën na ne. loolu moom kay da ngay bokk ak moom bàyyi rek. waaw déglu ma. Mar. lii mooy expresso. xam nga nag da ngaa indi problème bu rëy. dafa nank rek. mën naa ko tëgg mën naa ko fecc. Mar. man maa ko liggéey lii mooy expresso osé réveil léegi ma ni lugaloo ku ci am wéef na ko ubbi ubbil ubbil ubbil seen téléphone yi ma wan